Euh, est-ce que nek na une plateforme bu bu bu bu tranchante c'est-à-dire bu nga xamné ne euh, bu day juk rek yëkkati un combat gagné ko et puis euh, attirer l'attention des Sénégalais c'est-à-dire ñom dañuy dafa dafa mel ni mburum làmb bu nga xamné dafa nekk ci digg langue gi day day fay avancer dóor le benn coup arrière dem taxawat avait mais est-ce que aujourd'hui du du du avait attiré l'attention bi commencé parce que lu tax la lu ëpp ak ñaar fukk ci ay parti politique mm. mouvement citoyen yoo xam ce sont des partis légitimes ñoom ñoo bokkoon ci cette plateforme mm. pour la première fois wala ay plateforme bu la plateforme F24 donc lolo au départ attiré notre attention ils avaient quand même plusieurs points qui s'étaient mis à combat Bon, on ci la troisième candidature Bon, on a dama jàpp le président la du moment où nous nous du présenté benen bi. ñom ñu japp ne dañoo gagné combat boobu. dañoo gagné combat boobu oui mais peut-être euh, buñ ko doon gagné amana sax doon ñu won bëgg yegg ci fo xamné dañuy manifester ba ay nit di ci am ay gañu ga wala ay yàqu-yàqu mais jotuñoo poser benn acte à part un rassemblement bu ñu defoon euh, ba mu mujj le président de la république mom euh, waxal bopam né mom présenté wul te mu japp né c'est pas la pression moom moo tax ñu japp né c'est la pression loolu nak bataille politique la entre l'opposition et le pouvoir mais au départ.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 peut-être que nous nous forcer il faut respecter les principes il faut pas forcer les dem manifester amuñu autorisation respecter les règles et ces règles là qui koy définir aujourd'hui ces autorisations de manifester et de marche montre peut-être ni sentir ak ko nous wax gisuma fi man dama Nous am Sénégal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 c'est l'exception xam exception la la règle moy la liberté dissoudre un parti politique dafa exception et musuñu ko gis musuñu ko ci 60 ans aujourd'hui 62 ans après qu'il ait dissoudre un parti politique qui est le parti Pastef donc nous ils sont dans leur rôle de dire que li nga démocratique

ñom ñi doon voté ñi ci bari ci benn mouvement lañ nekk té gëmoon nañ ñi dañ ko def mais réussir nañ ko mais hormis lool seet leen li fi am ñu bañ rek parce que genn genn gum nañ ci ñu wone ginaaw mais dafa am lu xewoon kenn du lewal dafa am lu xewoon kenn du wax dafa am situation bu grave bu nekkoon situation boobu kenn du ko lewal kenn du manam kenn du ko justifier man je ne suis pas là pour justifier des actes de vandalisme mhm. nekkuma fi pour di lewal ay attaque ak ay invectives sur des autorités jamais duma ko def dama ne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 depuis le procès de Karim Wade depuis le procès de Khalifa Sall li nga xamné mom les avocats Kala nañu de Ousmane Sonko aujourd'hui encore euh, bëri le lu ñu fi dégg que le président de la Macky Sall euh, ci ONU Nations Unies. au des Nations Unies entre autres. mais est-ce que effet d'autant plus que. c'est ça ces instances là nous, dañu ci oui tout à fait Nous, ñun signé ces instances. Hmm. ONU Union africaine e entre autres dañu ci maintenant quand vous nous les les pour pour maintenir, bi euh, cour de justice bu CEDEAO ne parrainage bi baxul nañu ko dindi wala nañu ko jent ko tek sa plateau laaj ko ndax parrainage bi dañ ko wara digni pour sukkandiku ci cour de justice bu CEDEAO da lay wax ne nous sommes un peuple souverain maintenant <laughs> il signe des conventions dañu nek partie prenante <laughs> euh, ci ci ci ci organisation yoyu mais su fekkee ne pexe ñëw wala bok ñu ne len li baxul nañ ko joyanti dañuy raxasu ba mu set ne un peuple souverain lañ su fekké tatchu nañu len ne Sénégal kat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 du ko jëfé du ko wax parce que mom il se dit que c'est un pays euh, souverain bo xamné waru sukkandiku ci fofu peut-être que bataille politique la bo xamante ñom dañu koy def l'opposition la koy mais yagul dara ba ñu audit ba ñu audit mais audit bi mu bi muy bi muy mujj joxe avec ci Sénégal ak légui yagul ça ne fait même pas même pas 4 5 6 mois sur euh, les libertés d'expression ci wax na ko fi voilà individuelle et tous donc loolu bu ñu waatee li doolee ko ci aussi ça revient au même dara changé wu fi parce que loolu c'est récent bien sûr je dis que hmm. ils sont dans leur rôle aujourd'hui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 arrestation dafa bari nga far nga far d'un côté comme de l'autre côté boo dee nekk sénégalais di xol, di nga aujourd'hui entre 2012 ak légui, ku wax ñu teg la loxo képp ko xamante boko gis-gis ku wax it parce que amna ñu wax ba d'une manière extrême bo xamante lima les wax sank ken mun layal mais il y a plusieurs arrestations yo xamante pour ñu delloo wala ñu conserver parce que mënu ñu wax né démocratie da parce que les sax ci démocratie la mu tuuti wala mu bari ci démocratie la bokk mais préserver les acquis démocratiques yi ñu amoon dafa am solo ci réew cadre. Euh, mi ngook Ibrahima Pouy.